tey dafa wooroon mu tëdd gént Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente ne ko Ousmane am na lu nar a am tey dan la nar a rey de waaye ñaar am na soo buggee ñu defal la sécurité kenn du la mënal dara waaye boo buggee nga tànn ndogus ci man mu ne ko tànn naa ndogus ci yow Fatima mii bi yonent bi di sukuraat dafa dee Fatima Fatima jooy jooy yu metti yonent bi woowaat ko dee ko Fatima ree yonent bi génn àdduna ñu suul ko ñëwaat benn saxaaba ne waaw Fatima yow yow sa papa nekk sukuraat dee la nga mu woowaat la dee nga nga ree yow bu nu jommal waxuñu lan la mu ne ko sama papa def ma dee ne ma feebaram bi da ciy génn àdduna lool moo ma metti ma jooy parce que aw ma kudul moom mu ne mu woowaat ma déema ma ree ñu ne ko lan la mu ne nee na bu génnee àdduna weer laa ciy teg maa koy njëkk a fekk ci doomam yi loolu moom la kontaan loo ma ree ñun tey jii kun waxoon timis bi kaay dem fële tey doy waar de parce que ñun préparé wuñu suñu fële loolu mooy coow li coow li coow li mooy fële préparé wuñu moo tax bëgguñu faa dem yonent bi saa salaam dafa yaroon sahaaba yi ba nga xam ne jihaad day jot yonent bi ne ubbi nañ bunti àjjana kan mooy reeri tey nga gis ku doon lekk tàndarma daal di sànni tàndarma yi ne baxin baxin ñu ne ko lu la dugal ci li mu ne lii daf may tardeel àjjana laa bëgg a dugg parce que ñoom dañu préparé woon seen alaxira ay nit lan yoo xam ne sadaquma ahadullah alay lan waxoon yàlla ca la nekk kon mbokk yi nanu yëg ne la yóbbu Muhammad dum fi bàyyi moo tax alaaji Malik di wax ci benn téeréem nee na law lam yalux fi lfadail kawni tawatuhu tabqa albariyatu fi zalmaai allahu su Muhammad feeñul woon ci àdduna nit ñëpp ci lëndëm la ñuy nekk alaaji Malik moo wax loolu sëñ Tuubaa lan la wax nee na lam yabdu misla Mustafa sirran wa jëhran fi lbaraya sarmada nee na ku mel ne Muhammad musta feeñ ci àdduna ci lu nu xam ak lu nu xamul ku mel ne Muhammad musta fi ñëw waaye Muhammad moomu moo feebar tëdd ci lal sukuraat jàpp ko ba mu naan subhanallah inna lil mawti la sukuraat sell ñeel na yàlla dee moo metti kon ñun war nañoo góorgóorlu jaamu yàlla mbokk yi Usmaan ibnu Affan radiyallahu wa arda radiallahu anhu wa arda su déggoon su gisoon bàmmeel ñuy suul nit day doy day taxaw di jooy benn bi saxaaba yi ne ko Ousmane tazkuru naar wal janna wala tabki da ngay xalaat ajjana xalaat safara doo jooy lu tax Ousmane boo gisee bàmmeel rek kenn dootul déggati mu ne ndax yonent bi nee na dégg naa yonent bi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di wax al qabru awalu manazilil axira faman najaa minhu fama baadahu aysar faman lam yanju minhu fama baadahu ashad dégg naa yonent bi ne bàmmeel mooy première kër ci këru àllaaxira yi ku rëcc bàmmeel fa ca ginnaaw bàmmeel da ngay rëcc waaye ku ñu mbugal bàmmeel fa ca ginnaawam dañ lay mbugal mbir yëpp bàmmeel la ku sa àllaaxira nar a neex sa bàmmeel mooy neex waaye ku sa àllaaxira nar a naqari sa bàmmeel day naqari yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu génnee àddina anas ibnu malik di nettali ci benn hadis sunu yaay Fatima di ko laaj ne ko waaw yow anas keroog ba ngeen jàppee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam simmi ay yéreem daal di koy sàng sang ko sang ko jullee ko xar suuf si gas ba mu xóot daal di ko ci yoor daal di delloo suuf si ci kawam ngeen dem ñibbi bi ngeen demee seen kër toog lan ngeen yëg seen yaram laaj la boo xam ne war nañ koo laaj suñu bopp su fekkente ne Seydina Muhammad lan jàpp sang ko sang ko gas suuf si dugal ko ci delloo suuf si ci kawam kon ñun ñi lan la war a yëg suñu yaram laaj la boo xam ne kenn ku nekk na nga ko laaj sa bopp comme Muhammad lañ def noonu laajal laaj bi sa bopp mbokk yi amul kenn ci ñun lu dul su dee waree jot ci yow lu dul yàlla dina la yónnee benn cortège malaaka bu la jël si muy juróomi malaayika malaaka yooyu ñoom la yàlla di giñ ci benn saar muy wan naziaat surtout naziaat borom bi mu ne wan naziaati garqa wan naashitaati nashta wassaabihaati sabha fassaabiqaati sabqa falmudabbiraati amra juróomi malaaka la yàlla di giñ malaaka yi ñooy jël si yéeféer buy génn àddina ak jullit buy génn àddina yépp ñii ñoo lay jël si juróomi malaaka lañ malaaka bu njëkk bi wan naa si aat ñi yàlla di giñ ñooñ ñooy malaaka yiy rey yéeféer yi kàccoor yi malaaka yi ñoo leen di rey wan naa sitaat mooy malaaka yi nga xam ne jullit yi la ñuy jël si juróom lañ ànd ak seen amir seen amir mooy malakal mawt malaaka bu njëkk bi ñëw ci doomu aadama ak fu mu ko fekk fu mu waree dee ak wax ji mu koy wax lii la yaa abdallah tuftu laka mashaariqa al ard wa magharibaha falam ara ala wajhi al ard sharbata ma in tashrabuha e yow doomu aadama wër naa penku ak suuf wër naa penku ak sow asamaan ak suuf amatuloo ndox moo naan loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne seytaane day teew ci seen bépp mbir même bu ngeen di sukuraat seytaane day ñëw yor kopp ndox naan la weddi yàlla ma may la nga naan jamono yooyu buñ la doon yóbbu ci géej gi nga naan ko ba mu jeex doo màndi ndax sa put gi day wow koŋ waaye seytaane day teew seytaane nee na du ma deñ di leen bewloo fekk ruugaa ngi ci seen yaram duma leen bàyyi laa azaalu arwihim maadaama arwaahum fi ajsaadihim du ma deñ di leen bewloo di leen réerloo fekk ruugaa ngi ci yaram yi duma leen bàyyi kon seytaane kañ la ñuy bàyyi bu ndee feeg ñoo ngi noyyi duñ bàyyi kon looloo tax ñu war a xam ne ñun ki nuy xeexal du ku ndaw ndax koo xam ne da lay gis foo ko dul gis moom ak fameem koo xam ne day daw ci sa yaram bi ni sa deret di dawee inna sheytaan tajri ala ibnu adam majra dam kon war noonu bàyyi xel ki ni xeexal mbokk yi du ko ndaw waaye war noonu bàyyi xel dee umar ibnu abdul aziz rahimahullah saa yu duggoon këram day jooy benn bis mu dugg këram jooy jooy yu metti ba jabar ji yeewu toog di jooy ci wetam ay doomam yeewu toog di jooy walamma samiahumul jiraanu jaalu yabkuna maahum ba leen dëkkandoo yi déggee ñuy jooy dëkkandoo yi yeewu toog di jooy ba jooy yi metti ñu ne ko yarhamuka allahu ya umar ma hazal buka umar yal na la yàlla yërëm jooy yi lu ko waral mu ne leen tasawartu yowmal qiyaam alaxira rek laa imaginer sama xel alaxira rek laa xool nii ma gis kuréel bii ñu nga àjjana kuréel bii mu nga safara mu ne xamaguma fan laa bokk man kon ñun fu ñu jëm fii nu toog kan moo xam foo bokk xamuñu ko te ñu ngi fo rek te kenn ci ñun wallahi xamoo foo jëm Sufyaanu Sawri dafa gis benn ndaw benn waxambaane muy xaqataay di ree mu ne ko ndax yow jéggi nga siraat mu ne ko déedéet mu ne ko ndax dugg nga àjjana mu ne ko déedéet mu ne ko ndax dugg nga safara mu ne déedéet mu ne ndax xam nga fan nga ci bopp mu ne ko déedéet mu ne kon warooree warooree de mbokk yi ku xamagul moom ndax day dugg àjjana wala day dugg safara warutaree mikail yonente bi saa sallam dafa dem laylatul isra wal miraj gis mikail mi ngi ne këcc ci noppi yonente bi ne jibril maali laa ara mikail yadhak lu tax mikail mi duree jibril daal di tontu yonent bi ne ko yonent bi yàlla bindee safara ba léegi mikail dafa ragal a ree ndax dafa yaakaar ne bu reetaane yàlla dugal ko ci moo tax duree ñun nag da ngay gis koo xam ne dafa def benn konéréem am njaaxumam waxuma la ree waaye tàllal loxo bi dóor ah subhanallah ay waay yal nan yàlla yërëm balaa ni dee ci ni nu mel ñaareelu malaaka bu ñëwee danaan la yaa abdallah bu dee góor bu dee jigéen mu ne yaa amatallah te yow jaamu yàlla bu jigéen bi tuftu laka masariqa al ard wa magharibaha falam ara ala wajhi al ard luqmatan ta'kuluha falam ara luqmatan ala wajhi al ard ta'kuluha e yow jaamu yàlla wër naa asamaan ak suuf penku ak sow amatuloo lekk boo lekk lan la la waxoon sànq amoo ndox moo naan lan la la wax léegi amatuloo dànk booy lekk gis nga jamono yooyu ci ngay tëdd salal ñu ne wàcce leen ko lal bi suuf see ëpp yërmande ñu jël sa mbàjj jël basang lal wàcce mat la bi bañ nañ nga yàq lal bi te yaa ko jëndoon ndeysaan lal bi nga xam ne amaana nga jëndewoon ko quarante cinq mille amaana nga jëndewoon ko cent mille yenn saa yi sax nga dékku ne sama lal bi trois cent mille laa ko jëndee mat la bi cinquante mille wala mat la bi cent mille darab bi gàm bi lay jóge maa ngi ko jënd deux cent mille waaw tey jii lal boobu di nga ko wàcc bëri na woon looy dégg lal boobu nga tëdd ci fajar nga dégg jàkka ji ñu naan la assalaatu xayru min an nawm nga naan laa an nawmu xayrun min assalaat tey di nga wàcc lal bi fal force nga wàcc mat la bi tey tey di nga bàyyi mbàjj mi tey di nga bàyyi soxna si mbaa nga bàyyi sa jëkkër te yàlla soxla su yàlla soxlaa keneen ku dul yàlla da ngay ñàkk malaaka bu la waxee loolu fii lekk doot fi jaar ñu ne nañ leen ko ruyal ndeysaan ñu ruy ponkal moo xam ne ginaar la doon reere naan ñaari butel lisa ñu ataayel ko defal ko meew mu doog a tëdd tey dañ koy ruyal wala ñu defal ko meew te sax du dugg de dañuy tànk ku du dugal mu daal di wàccu moo tax yàlla ne kalla ida balagati taraqi wa qila man raaq wa zanna annahu lfiraaq yàlla mu ne bu ma xëccee ruugi ba ci benn baat yi nga dégg waa kër ga ñu ne kan mooy mocc dem wooy docteur bi mu pikiir passé visite bind ordonnance wooy ilimaan qul a'uuzu bi falaq bi rabbin naas ayatul kursi yu tuf tuf yàlla mu ne wa zanna annahu lfiraax kii tëdd fii wóor na ko ne tey day tàqali ko àdduna waaw te yàlla soxla mbokk yi tey fii lekk dootu fi jaar ndeysaan ci instant boobu la la say njaboot wër dëkkandoo yaa ngi la wër naan la diw ñun la xam nga ni jabar ji ndeysaan day tàllal tànkam teg la ci bu dee jëkkër ji tamit noonu la bu dee jigéen ji tamit noonu la day taalal tànkam njaganaayoo lab njëkkati sa bopp bi nan la man la xamuma day ko rek bu baax baax nga xam ñii ñan la sa taaw ne la papa man la sa doom bu jigéen ne la yaay xamooma man la yàlla nee na ma téye làmmiñ bi ay rongoñ nga koy faje rongoñ mais jékki-jékki rek gis rongoñ yi di génn mën ta wax ndax yàlla nee na téye na put gi boli gaa ngi fii fii la ruugi yem kalla ida balagati taraqi wa qila man raaq wa zanna annahu lfiraaq du nu yëg rek lu dul wal tafati saaqu bi saaq ñu yëkkati loxo mu daanu ñu yëkkati tànk mu daanu fan ila rabbika yawma idin il masaaq dee ngi ni ñuy fo rek moo tax yéen tamit ne tazakkaru daa iman al mawt na ngeen fàttaliku dee wa murru alal qubur romb leen bàmmeel yi wa alamu annaha satakunu lakum masakin kama sakanaha man kaana qablakum ne leen wóor ne bàmmeel yi tey ni ni mu amee ñu fi dëkk tey suba yéen ñi yéen a fay dëkk sawfa tunqaluuna anfasihi daar wa tudxuluuna al qubur dinañ leen jëre ci kër yu yaatu yi yóbbu leen ci bàmmeel yee da ngay dégg sama kër gi tiitar foncé la su ma dundee ba tabax sama kër gi étage te étage bi kat ndeysaan bis buñ lay wàccee doo ci yóbbaale birig fleur moo gën a tuuti du la topp ñu ngi topp ci ba kër yi rek kay tabax kër yi sax moo gën a rafet jàkka yi kër yi dañ leen a orné ba mel ni palais li kis ki di wax waaw fa kam min maridin udna wa ma udna fa kam min quburin tubna wa ma tubna nan leen ragal jaamu yàlla mbokk yi sunu alal yi ñu yàlla jox moye la pour nu mën a jaamu yàlla waaye dañoo dem topp alal ji topp alal ji ba fàtte yàlla te yàlla mu ne nu alxaakumu takaasu soxlaal na leen bëri lante alal ngeen nekk ci loolu hatta zurtumul maqaabir ba dee ñëw jël leen yóbbu ca bàmmeel ya ngeen di dajalay jal rek yéegu leen ne benn bis jalla jalaaluhu dina ñëw jël leen ñu yóbbu leen jal leen ñëw tas jal yi ngeen jaloon jaale leen ñëpp foofu la ñuy mujjee ñetteelu malaaka mooy ñëw ne la yaa abdallah bu dee góor bu dee jigéen mu ne yaa amatallah tuftu laka mashaariqa al ard wa magaaribaha falam ajid laka xutwatan ala wajhi al ard taxuttuha war naa asamaan ak suuf penku ak sow sa tànk bi amatuloo foo ko teg ndeysaan tànk dootul yëngatu bu malaaka waxee loolu tànk dootul jóg loxo dootul jóg moo tax ñu ne wal tafati saaqu bi saaq su njëkkatee loxo day daanu bu njëkkatee tànk day daanu beneen malaaka daal di ñëw ñeenteelu malaaka ne la wër naa asamaan ak suuf penku ak sow falam ajid laka nafsatan tatanafasu bi wër naa asamaan ak suuf penku ak sow amatuloo noyyi boo noyyi su la malaaka bi waxee lii nag léegi malaka bu mag bi mooy ñëw muy malakal mawut wala an nara al malakul mawt yastaiddu li taslimi l amaana li xaaliqiha malakal mawt si mooy ñëw malakal mawt mooy ñëw jël ci sa ruu fu mu koy jëme ci ku ko dénkoon moo tax alaaji malik mu ne fa kayfa al xaal ida nazala dayf maa lahu xiran illa al arwaax xanaa du ngeen yéemu bis bu ngeen amee gan loo def pour teral ko mu ne la soxlawuma ko nga ni ko loo soxla mu ne la sa ruu ruu gi rek laa soxla waaye ñun téere yooyu nga xam ne sax sëriñ yi dañ ko bind pour ñun ñu waaru ci déedéet ñun duñ ci waaru dañ koy jël di ko jàng te duñ ko firi di ci ut barke tiyaaba fekk di ko woy fekk dañ ko waroon jàng xam lii lan lay wax mais dañuy jàng xasaay di rek lu yéeme la yenn saa yi nga gis ay jàng ñuy woy sax alquran dafa am benn aaya buy wax ci yowmal xiyaam yenn saa yi da ngay romb ay nit di ko woy wajaa rabuka wajaa rabbuka wal malaku wal malaku safan safan saf subhaana di te di fecc firi leen aaya boobu lu muy firi na leen ko firi yàlla mu ne kallaa izaa dukkatil ard bu ma mokkalee suuf si dakkan dakkan ay mokkiti mokkit fu nu xool gis lépp mokk yàlla mokkal ko ba mu mokk ru mboq nee na wajaa rabbuk sa borom dikk wal malaku safan safan asamaan si xotteeku malaaka yi raa di wàcce lan la ci teg lan la ci yàlla teg lan la ci yàlla teg ci aay boobu wa ji a yowma izin bi jahannam safara jahannam a ngi nii ñu takk juróom-ñaar fukki junni seen seen bu nekk juróom-ñaar fukki junni malaaka jàpp ci ñun loolu la nuy woy xoolal di ko woy subhanallah kaddu gi yàlla di wax ci yowmal xiyaam ñun dañ koy woy di ko fecc bu fekkee kaddu yowmal xiyaam la nuy woy kon yeneen yi fu jëm ñun de lii mooy sunu mbir lii mooy sunu mbir ñun tul nañu alquran beleen daw nañ ci hadis aaya yi dootuñu dugg hadis dootul dawloo sunu yaram bu yàlla waxee dootul dégg su ne yonent bi nee na dootuñu tal ko loolu mooy sunu mbir ñun waaye malakal mawti juróomeelu malaaka mooy dugg lan la ruugi lay jël si moo tax yàlla mu ne fa lawla ida balagatil hulquum wa antum hiina idin tanzuruun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruun fa lawla in kuntum gayra madinina tarjunaha in kuntum saadiqin yàlla mu ne waa ji bi ma xëccee ruugi ba ci dénd baat yi jamono boobu yéen ñëpp yéen ngi toog ci saal bi waa jaa ngi nii xëcc naa ruugi ba ci dénd baat yi lu taxoon ngeen jàpp ci yàlla fii la tëkk ñëpp ndëndëm fii la ko samp ne kuy mën dara kuy jaay affaire su ma njattee sa waay kaay kaay kaay nga seen ndax mën nga ci dara su fekkee am na ku mën dara bu yàlla njattee sa waay ba ruug yi ñëw ci dindi baat yi yàlla mu ne jamono yooyu wa antum yi ne isin tanzurun yéen a ngi ni di xool waaye man yàlla maa leen ko gën a jege waaye du ngeen ma gis acca ñëw leen ngeen jàpp ci gis nga fii koo yaakaar soo dee sax du ko yëg dañuy xëy suba rek woo ko téléphone kar mu jël ñu ne ko diw dee na mu tiit ne loolu kañ la ñu ne ko biig mu ne xanaa dafa feebaroon gis nga kii yëgul sax bi ngay dee kon suba boo dee lu mu ci mun nañ leen jaamu yàlla ma ni koo fi yaakaar boo dee du ko yëg xanaa yenn saa yi ñu daal di dugg oto teg la ci ginnaaw oto bi oto bi daw ba ci buntu kër waa ji ñu ne sëriñ bi de fii la nekk ñu ne dem leen ngeen wax ko waa ji dee na ñu dugg fekk ko muy añ sëñ bi diw dee na de mu ne xaar leen ba ma añ ba pare waaw gis ngeen na leen jaamu yàlla mbokk yi malakal mawtu bu jëlee ruu gi day taxaw du dem wax ak ñun lan lay wax ibnu aadam ay na quwatuk ana sa doole ana sa doole ji nga doon jaay nga ni pat noppi mu ne maa àdd afaka dara gënu laa yambare ñaata ci ñun tey ñooy xëy di daw ay kilomètres romb jàkka yi bu ñu nee julli ñaari ràkk fajar nga ni non damay defar sama yaram seera say laasi bataa ba mu dëgër sol sa kilot dugg mbeex mi damay jàpp forme ñaata ci ñun ñooy yow fajar di dàqanteeg oto yi ngir bañ a tardé su ne ñaari ñàkk ñaari ràkk fajar nga ni déedéet yàlla mun ko am yàlla mun ko am ci yow ana doole jooju nga doon jaay nga ni patt noppi mu ne la maa àdd afak dara gënu laa yembare tey yaa ngi nii ne lacc tëdd loo def dan la ko defal ibnu aadam ay na basaru ko ana say bët lu tere woon nga gis lii xam ne day ñëw nga ni patt noppi mu ne li ma laa tara lu tax doo gis du fa yem ay na samuka ana say dégg ana say noppi maa asmaaka dara gënu laa tëx ibnu aadam ay na riixu ko ana sa xet ci ñun ñaata yoon la ñuy xëy sangu tocc miku façon diw bu nekk am nan ko façon parfum bu nekk am nan ko pour lan xet gu neex ana sa xet googu ku dee ay minutes rek nga commencé changer il faut ñu uti glace gaaw leen gaaw leen uti glace takk leen tànk yi takk leen gémmiñ gi ci minutes yu ndaw nga commencé soppeeku kon yow war ngaa xam sa bopp war ngaa xam yaay kan balaa lii di ñëw ci jamono yu ndaw minute yu tuuti nga commencé soppeeku bu nu takkul tànk yi bu nu ñëwee di sang dañuy am problème bu nu takkul loxo yi noonu la bu nu delloosiwul bët yi noonu la bu ñu boolewul ŋaam gi ak bopp bi takk dañuy am problème kon gémmiñ gi day ŋaang rek kenn dootu ko mun a delloo kon foog ñu boole sikkim bi ak bopp bi takk foog ñu boole ñaari baaraam yu tànk yi foog ñu boole ñaari oom yi foog ñu boole biir beeg loxo yi takk moom dëgër daal di bàyyi noonu nag ku nekk dem ñibbi ñu ne dem leen ngeen fanaani ba suba nag ñu ñëw préparer nun ko yóbbee ndeke loolu jara bàyyi xel la mbokk yi loolu du lu ndaw te ñun ñii toog fi yëpp du ñu ay immortel wala fii am na immortel ah kon alhamdulilah du fa yem ay na riixu ko ana sa xet ay na sawtu ko ana sa kàddu ku réyoon làmmiñ nga ñaata kasetu musique nga woy ñaata disque d'or nga am sa làmmiñ bu réy bi lu la noppiloo tey ay na sawtu ko nga ni patt noppi mu ne maa askata ko lu la noppiloo acca du fa yem waaye ay na maalu ko ana sa alal xam ngeen borom alaxir borom alal yi nu ñuy jooyee alaxira maa agna anni maaliya borom pouvoir yi ñu amoon doole defa na ñoom du nu dee ñoom xalaka anni sultaaniya ñee naan maa agna anni maaliya ñi naan xalaka anni sultaaniya maa agna anni maaliya xalaka anni sultaaniya yàlla day jékki-jékki daan ne xuzu Ablaay ibnu Abbas nee na bu yàlla nee malaaka yi xuzu juróom-ñaar fukki junni malaaka ñoo lay jiiroo fan la ñuy jàpp ci yow benn malaaka rek xëjul ci nit benn malaaka xëjul ci doomu aadama ndax dëgg gi ñu dégg ndigal yàlla su yàlla ne xusu juróom-ñaar fukki junni malaaka ñoo lay njëkkante ngir bëgg def santaane yàlla ci yow moo tax yonent bi ne nit ñi dañuy nelaw bu ñu dee yeewu te dëgg la dañuy nelaw bu ñuy dee di yeewu mbokk yi léegi nag jël nañ waa ji da doon bañ a dem jàkk bëri na lu muy yomb jàkk ji du fa sax dem ñu ngi koy génne kër ga waaye buñ koy génne kër ga dina wax ak waa kër gi waaye waa kër gi duñ ko dégg waa ji lan lay wax ak waa kër gi yaa ahli yaa abnaa'i yaa man axastum amwaalana wa labistum siyaabana wa sakantum diyaarana laa talabanna bikum dunya kama laibat bina ee yéen sama waa kër ee yéen samay njaboot yéen ñi nar a dëkkewaat sama kër yéen ñi nar a solaat samay yére yéen ñi nar a donnaat samay alal ngalawaay bu leen àdduna jay bu leen àdduna nax comme man ni ma àdduna naxe tey man de maa ngay dem ndeke borom kër yi bis mu nekk bu leen génn ci kër yi danañ wax ak waa kër yi waaye nit ñi duñ ko dégg Sénégal moom boo dee rek gaaw nañu ba sànni la ca morgue ba jënd nañ ceeb commencé nañ tànn jënd nañ ay matt am na ñu dem daral commencé na noo noos rangale ci benn koñ quinze cin def baas yu rafet ndox yu sedd yi di dàqante yenn saa yi sax nga ne nga dégg ñu ne dëj bi nan ko fomm nan ko aj nan aj dëj bi ba weeru koor gi jeex dëj bi de neexul ndax courant dafa coupé glace amul lu nekk ngay dégg léegi moo tax gis nga ku fi ku fi dof dof lu foowe sa dund boo dee sa ginnaaw dan lay dan lay dañuy foowe sa alal kenn du la ñaanal ñii te lu ñu ñaan de koo xam ne sept heures ci suba la ñëw ci ci dëj bi ba sept heures ci ngoon ah da ngay gis ci dëj koo xam ne dafa ñëw ci dëj di jooy su daanoo jooy il faut ñu jëndal ko soow def ci suukar pour mu doog a noppi ñu ne dafa daanu ah daanu boobu neex na di loolu kay ñëpp a bëgg a daanu daanu boo xam ne li la yëkkati mooy soow ak suukar xam nga nit ñi dañuy jaaxaan koo xam ne day dégg diw dee na mu yeewoo këram joxe dépasse ñu toggal ko añ ba pare mu añ ba suur dugg oto romb dëkk bi yëpp ñëw ba ci bunt kër gi tas museur bi commencé jooy kii kay bu fekkoon ne dëgg la ca suba lay ñëw gis nga nan leen yeewu mbokk yi coow li coow li mooy ku fi dee sa ginnaaw pare nga dañuy noos bëri na borom kër ku fi dee ñu jaay sa kër sa doom jënd ci seen en musique bu mag waaw nekk léegi benn animateur mbaa mu deme ko Italie benn boroom xam-xam bu mag dafa am ay doom Mauritanie la dëkk am ay nag ay gëléem yu baree bari bis bu nekk soow mi la ñuy reere soowu nag yi la ñuy reere soowu gëléem dañuy rat ba siwéy fees ñu xaaj jox ko lii desal ko wàllam ci buntu néegam bu yeewoo jël siwam daa di daa di daa di reer benn bis xale yi daal di rat reer bàyyi ko fàtte ko mu yeewu xool gisul ñu tegal ko place am mu tëdd continuer noonu bis boobu reerul fande bu bët set mu woo leen ne waaw démb ko aye woon ñu ne diw mu ne ah diw ana sama wàll démb ci reer bi mu ne ko papa dama laa fàtte mu ne ko danga maa fàtte mu ne ko waaw mu ne ah comme may dund ngeen fàtte ma kon xam naa bu ma dee moom mu dem marché daal ne miskin yi ñëpp ñëw leen ñëpp ñëw mu ne jël leen alal ji lu ngeen soxla ngeen jël ñu njëkkante nag yeeg gëléem yeeg xar yeeg lépp yóbbu ba mu jeex tàkk mu ne balaa ngeen may fàtte ma liggéeyal sama bopp alaxira gis nga ñun ñi wallahi al azim bëri na ci ñun nga génn àddina wallahi doo am ku la ñaanal parce que ki la war a ñaanal tolu ko amul sa jot amul sa jot talu laa ñaanal dafa xamul sax num lay ñaanale fii na ngay dégg ñu ne waa nan la ñuy ñaanale néew ñaateen nga koy dégg ñu koy laaj ci rajo yeeg télé yi talu nu ko lan lan tal mooy alal nu nu amee alal nu nu fowe nu nu noose loolu lan tal kon ku jaamul yàlla bu yeboo nga xam ne yaa ngi perte mbokk yi génne nañ la nag léegi wax nga ak waa kër gi waaye waa kër gi déggunu ko fii nag moom ñëppay deltu ginnaaw gis nga bu ni dee bu doon jabar la mbaa muy jëkkër mbaa muy doom ku mu mënta nekk boo dee wallahi buñ ko ne woon fanaan ak mor ak moom fii ci morgue bi ba bët set day bañ ma ni lal bi lu mu nooy nooy nooy bu nee waa ji tëddal fii nga garder ko ba suba jabar ji tëddal fii nga garder ko wala doom ji tëddal fii nga garder sa papa ba bët set dinaan bàyyi leen ma ma dem ci saal bi kenn du nangu nekk ak yow fii ñëpp ay dem yow ku néew bi rek nekk léegi mooy moom mooy moom mooy avancé fu mu jëm morgue ba lañ ko jëmee jàkka ja man nag foofu am na lu ma jaaxal ndax yonente ne woon al madaarisu qabla al masajid jàkka joo gis tabax nañ fa morgue waaye tabaxuñ fa école bu nuy jàngi diini jàkka ji dañ ko tabax ba mu pare tabax morgue bi fàtte yonente ne woon école yee jiitu jàkka yi parce que ñett yooyu moo am dana waroon tabax école ba pare boo génnee ci école bi dugg ci jàkka ji boo génnee ci jàkka ji doo ko dugg ci morgue bi léegi nag ñun ñu tabax ñaari yee bàyyi bee moo tax ndeysaan nga gis ay jullit mun noo sang néew mununoo jiite dara lan mënul ci diine tudd doom sax mënunu ko tudd doom xaar leen ilimaan ñëw bu ñu dee ilimaan te nag duñ jox dara ilimaan kat duñ ko jox tus di ko sonal ñun foofu lañ toll suñu diine léegi sax jàngkat julli gu gàtt lay def mais kële wu ko jullim dafa gudd bëggatunoo yàlla bëggatunoo yàgg ak yàlla sax benn minute te boo toogoon ak xale bu jigéen bi nga bëgg rek doo bëgg a ñibbi boo toogoon ak ku góor ki nga bëgg doo bëgg a ñibbi waaye ngay julli ci kanamu yàlla lam yokku sax mënoo koo jàng ay inna atayna wal asr yenn saa yi nga dugg ci jàkk doo wax sax subhaana rabbiyal azim ñu siggi taaye da nga naan atahiyaatu rek ñu ne asalaamaaleykum waaw affaire yi dañ koy taf-tafee taf-taf te xoolal wallahi li lay wan ne ñun julliwunu mooy xoolal ku fi amoon tey audience ak njiitu réew mi waxuma la bala ngay dem mais préparation bi ngay pare ci yëre yi ngay sol sangu bi ngay sangu parfum bi ngay xeeñu ak boo demee ba ci dugg ba ci biir ba mu taxaw ak yow rek balaa mu lay wax asalaamaaleykum ba nga koy nuyu ak na nga koy nuyoo ak taxaw ba ngay taxaw bu la newul toogal doo toog xoolal yitte boobu nga jox kii te joxoo ko yàlla ngay gis jàkk moom ku jóge fële di ngand ngandalu waaw di diri tànk yi ci basang yi ñëw taxaw allahu akbar di xool montre wala di defaraat mbax ne mbaa kaala di defaraat chemise naan nii ci kanamu yàlla kat la taxaw te bu taxawoon ci kanamu njiitu réew mi danaan cocc yaru ne nii ay loxoom nii lay def du sax siggi yenn saa yi sax mu ne nii mbax ne ni waaw yaru yarul yow nga taxaw tey kanamu yàlla di fo noonu la ñuy def ñun ñëpp ñun ñi ñëpp noonu la ñuy def julli gi nuy julli saful dara xam nga Laxdari dafa jàngal ne julli am na lu ciy neex mu ne laa yanaaluha illal xaashi'uun léegi amatuñ loolu cafka googu di saf ci biir julli sax amatuñ ko léegi asalaamaaleykum allahu akbar asalaamaaleykum la ñëpp dem ñibbi jeex na waaw ku fi guddal julli sax dañ lay jëw mais diw war ngeen koo changé ah parce que moom ñun amuñu jot parce que dañuy liggéey am na benn waay boo xam ne jumaa la toog ñuy xutba mu seen seen oto liggéey rek jóg jël ci yaadaam ana waaw waaw ñun foofu lañ toll ñun mbokk yi nañ leen tuub nañ leen tuub de nañ leen tuub amul kenn ci ñun lu dul am nay bakkaar amul kenn ci ñun lu dul nii lay jaamoo yàlla loolu nag li ci war mooy nañ leen tuub tuub du wees de tuub du wees tuub du wees tuub ñaari charte moo ci am boo ko xaaree ba boobu di def doog kenn du ko nangu boo bàyyee ba malaakal moo ti jàpp toog sa put gi nga bëgg a tuub kenn du ko nangu boo bàyyee ba jant bi xëy fenk fii soo tuubee kenn du ko nangu kon nag nañ leen tuub balaa ñaar yooyu ñëw mbokk yi bu nu dugalee ci biir bàmmeel bi ci biir morgue bi lu ñuy def dañ lay sang lépp li nga takkoon lépp loo soloon lépp loo defoon dañ koy dindi ba mu set ci kawas yi la ñuy njëkkee tekki jiin bi tekki ceinture bi chemise bi ñu tekki tekki karawaat bi ñëw bu dee kaala la ñu dindi dindi mbax ne ba mu set bu ñu or bi sax dañ koy tekki montre bi nga takkoon dañ koy tekki bu dee jigéen la greffage bi dañuy indi lañ set dagg ko ba mu set wicc da nga ko bañoon bàyyi waaye tey di nga ko bàyyi waaw bu dee mees ci la doon ko firi ba mu set wicc wiccaaral moo tax benn femme buy sang néew tuubaa mu ne ñaarama tiitaloon mais léegi benn la ñu ne ko lan mu ne bëri naa gis ndaw soo xam ne dafa dee greffage nekk ci bopp bi ñu ne dindi leen ñu dem ut lañ sa teppi bëri na ku dee mees nekk ci bopp bi ñu ne dindi leen ñu dem ut ràbb dindi mu ne waaye xeesal bee ma tiital xaw ma nun koy dindee te fii balaa jigéen ñi di ko def sax ëmb nga gis jigéen fi mu nekkee ci danger islam ne ko del tudd yàlla del jàng alquran del zikr ndax foofu sax olof yi dañ koy tuddee jigéenu wérul mooy koo xam ne dee la gën a jege ñun foofu suñu jigéen ñi nu ñuy def soobe yàlla damay rocceeku ngénte li kay ku fi ñëw ah cam xanaa xam ne man mii xoola ma loolu yow yaa ngi nekk ci danger yaa ngi nekk diggante dund ak dee nga naan da ngay jommalaate yow yaa xamoo ndax di nga ko fekke ñaata jigéen ngeen di dégg tey suñ génnee duñ ñëwaat ndax période boobu doomu aadama di juddu ñun ñooy dof doflu waaye attention de foofu ñépp dañuy jàpp tiit papa day jàpp jabar yóbbu ko ba buntu maternité taxaw di xaar docteur yi sax dañuy taxaw di xaar yaay onk tiit naan yaa latiif di woo yàlla papa nekk ci buntu maternité naan yaa latiif kër ga ndaw si bàyyoo ñu naan yaa latiif ku yëg ne ndaw saa ngay matu sax yaa latiif saas faam yi sax yaa latiif la ñuy wax yàllaay toog ba mu neex ko daal di joxoñ liir bi ci biir yaayam ne ko uxruj ayyuhal mawluud bi xaqil malikil maabuud liir daal ne putt yuuxu yàlla mu ne suma sabila yassarahu yoon bi mu jaar maa ko yombal bu fekkoon ne du yàlla liir bi bu ne putt génn suñ ko nañ ko ci delloo kon day dee mbaa yaay ji dee waaye yàlla moo yombal yoon boobu xam ngeen ne foofu mu jaar ñëw wallahi nit xaju fa waaye yàlla moo ne summa sabila yassarahu waaw yow période boobu nga nekk bii moo tax ñu ne la sellalal foofu sellalal ndax fii jigéen ju fi dee sax dee ci mat day dem àjjana bu fekkee bu fekkee ku doon dund diine la bu fekkee ku doon góorgóorlu ci diine la ñu ne la boo dee mat da ngay dem àjjana direct ndax da ngaa shahid ndax danger bi la waaye fii da ngay gis suñu jigéen ñi ñaata jigéen nga gis fii ñu ñu ëmb diwu xonk coy doo leen xàmme sax buñ la nuyoo il faut nga leen sant ba dootoo leen xàmmee seytaane moonu këf mbokk yi taaral àdduna sunu kanam ba àdduna rek léegi la ñuy xool xoolatuñu yàlla waaye lépp la ñuy dindi ci yow ba mu set sang la sang néew yenn saa yi ngay dégg ñu ne diw dañuy xool ni nuy sangee néew fii léegi kenn mënul sangu néew sang néew lu yomb la ni nuy sangoo janaaba noonu la nuy sangee néew dafa yomb bay bëgg dee waaye problème bi du mënuñu ko danoo ragal du mënuñu ko de mënta rek benn jigéen dee ci quartier ñu ne moom de amagun ko ko sang ah kay am nan ñu ko sang danoo bañ danoo ragal dugg ci biir morgue bi wéet ak moom foofu loolu lan ragal benn góor dee ci koñ bi ñu ne amagunu ko ko sang am nan danoo ragal dee nag du gàcce victoire la ci ku sànkul dundam dee du gàcce de victoire la ci nit koo xam ne sànkul dundam mais bu fekkee sa dund da nga ko sànq dee gàcce la ci yow dee gàcce la ci yow waaye mbokk yi waa ji buñ ko sangee ba pare ba sàng ko perkaal yi génn ko ci morgue bi teg ko ci kanamu jàkk ji dañuy woo ilimaan ne ko jaamu yàlla baa nga gis nga la lan wax même ku ñëw sax ci dëj bi fekk ñu ngi sang dañ naan ana est-ce que day wax ana diw ana néew bi lay wax ana néew nga amatoo dara léegi néew la nga ci lépp amatoo dara ñu ne mu ngi ci biir ñu sang ba pare teg ci kanamu jàkka ji ni ilimaan ñëwal est-ce que waa ji daana dem jàkk moo tax waa ji bu fekkee daawul dem jàkka ñu yenoo ko ci këram di ko yóbbu ci jàkka ji jàkka yi day wax maa kaana lahum an yudxuluha illa xaaifiin moo tax kis ki di wax am na jullit yuy dugg jàkka du pour julli de pour ñu jullee leen xoola koo xam ne ñeenti punkal ñoo ko jàpp yëkkati ko di ko yóbbu kii neexu ko est-ce que neex na ko ku juróomi punkal yëkkati kii fal force mu dem buñ la yóbboon police sax nga dem moo xam naa nag da ngaa dee ñu lay yóbbu jàkka tey mosoo dem jàkk xamoo sax jàkk ji nu mu mel mosoo cee dugg mos ñoo laaj ñaar dërëm sax ba nga joxe ci jàkka ji te choléra bu ñu def ci koñ bi yow waxuma la yow yaa ko cotisé mais la ca ëpp yaa ko def yow sax yaa ko organisé yaa taf taraat yi sonn ci boobu nga dee podium bu ñuy organisé ci koñ bi yow yaa koy dox waaye buñ nee jàkk nga ni paa yi dañuy lekk xaalis yi rek ñun foofu lañ toll tey ay ndaw yoo xam ne seen jeunesse yëpp dañ koo jeexal ci foofu fàtte nañ ne yonent bi nee na lan tazula qadama abdil yawma alqiyama hatta tusal an arbaa xisaal doomu aadama bu nee cëpp ëllëg yawma alqiyam danañ ko laaj ñeent lan lañ koy njëkk laaj an shababihi fii ma abla bi nga nekkee ndaw ba ba ngay am bi nga amee dix-huit ans ba ba ngay am quarante ans loo liggéeyal yàlla danañ nu laaj loolu de mbokk yi danañ ñu laaj bi ñu amee fukki at ak juróom ñett ba ba nuy am ñeent fukki at lan lan liggéeyal yàlla tey li ëpp ci ñun fukki at ak juróom ñett ba ñeent fukki at caaxaan la caaxaan caaxaan lañ ko def fo fo waaw ñii nga sorti ñii nga stade ñii nga ca dancin ya ñii nga ca night club ya kenn ku nekk rek yaa ngi ca la la xiir islam moom mbokkoo mu ne jaamu yàlla nga ni non mais nanga xaar ba ba ma mag sunu papa yi sax buñ gisee xale bi dem jàkk dañ naan ko yow yow de léegi nga dee xale bi dem jàkk moo tax da ngay gis ndeysaan xale bu ndaw buy góorgóor di dem jàkk dem jàkk rek dem jot mu dee non kii kay xamoon na ne du gudd fan kii kii kay xamoon nañ ko ku sell kii ay boo sellee léegi lu ñu bëgg mooy na nga nekk wëyyu ba nga mag tuub loolu lañ bëgg bu dee jigéen sax buy muuru ah yow day moom da kii day moom ay doo gaaw a am jëkkër de kii day gaaf ténj ay yow ay dimbalinu sa kaala gii xanaa yow tàngoo xanaa yow malaaka nga kan wala ne malaaka day muuru ku leen ko wax te li ma jaaxal mooy ku ciy dem dëj muuru su sëriñ bi ñëwee nga muuru booy julli muuru booy dem màkk muuru waaw lu tax yow sa dund gépp doo ko muuru muuraay farata la dañ la sant jigéen dañ ko sant lax dari ñëpp jàng nañ ko lu mu wax almara kulluha awra ma adal wajhi wal kas loolu du jeex la waaye ndeysaan ñu ne xale bu jigéen du muuru jigéen danañ ko muur ñaari yoon ñetti yoon ñetteel bi du ko muri dina muri ñaari waaye benn bi du ko muri jigéen ju nekk danañ la muur ñetti yoon di nga mureeku ñaari yoon waaye ñetteel bi dootoo mureeku soo juddoo ilimaan ñëw dana la muur ne ilimaan am ilimaan ne ayizuki bi kalimatillahi tamma min kulli sheytanin wa hamma wa min kulli anin làmma ne ko taf ci nopp yi mu màgg mureeku mu am jëkkër ñu muur ko mu dem am fa ñett fan mureeku waaye bis bu malakal mawti ne cas ruu gi ñu dugal ko ci morgue bi muur ko dootul mureeku wallahi dootoo mureeku ku xaar ba boobu nag nga muuru nag am nga problème bu nu fàtte ne muuraay du sunna de du mustahab du manduub texte la yaa ayyuha nabi qul li azwajik wa banatik wa nisaai almuminin yudiniina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yuraf aaya la ñetti aaya ñoo ñëw ci alquran di wax muuraay waaye ñun ndeysaan ñu ne jigéen du muuru ndax sunu sëriñ si seen jabar yi duñ muur lu ci sa yoon yàgg sa sëriñ da ngeen bokk bàmmeel bokk leen bàmmeel ku dee yàgg sa bàmmeel kenn du la laaj sëriñ bi wallahi kenn du la ko laaj waaye Sénégal buñ buggee foofu dañ naan jabaru sëriñ bi doomu sëriñ bi lu ci sa yoon doomu sëriñ bi affaire am la jabaru sëriñ bi affaire am la yow say mbiru bopp lan lay laaj say mbiru bopp déggu leen yàlla lu mu wax li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi yàlla loolu la wax kon mbokk yi waa ji buñ ko dugalee ci morgue bi ba sang ko ba set làmb ko dañ koy tëral ci jàkka ji boo ilimaan ilimaan bu ñëwee lu muy wax day kabbar jàng fatiha kabbar def salaatu ala nabi kabbar daan na yàlla kii sa jaam la sa doomu jaam bu góor la ak sa doomu jaam bu jigéen xoolal ndeysaan bi ngay dund ku la ne jaam rek ngay bëgg a dee tey ñu ne la jaam doomu jaam doomu jaam nga ni pat doo jóg doo wax li ngay dund ci àdduna ku leen a jaam nga simmeeku kii mën la naan jaam dem police yéeg tribunal wàcc parce que dañ leen a jaam tey dee nga ñu ne la jaam innahu abduk wabnu abdik wabnu ammatik yàlla kii sa jaam la sa doomu jaam bu góor sa doomu jaam bu jigéen mi ngi nii tëdd tey waaye moom kat kaana yashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah gëmoon na ne yàlla kenn la muhammad yàllaa ko yónni waaye li gën a garaaw mooy ilimaan da lay accusé lan lay wax allahuma in kaana muhsinan in harfu shart yàlla bu fekkee kii da doon def lu baax da doon wala bu fekkee kii ñemewul wax da doon def lu baax ñemewu ko ilimaan ñemewu ko parce que xamu ci dara danaan yàlla bu fekkee kii da doon def lu baax ah fa zidhu fi ihsaanihi dollil ko waaye wa in kaana muusi an bu dee criminel la woon kàccoor la woon jéggal ko kat te sax bu fekkee da nga koo yàkkamti bul ñu teg mu fitna ginnaam de laa taftinna baadahu wala tahrim naa ajarahu daan ne assalaamu aleykum ñu yenu la bu fekkee ku baax ki la buñ ko yenoo nga dégg mu naan qaddimuuni qaddimuuni yóbbu leen ma yóbbu leen ma bu fekkee kàccoor la woon buñ ko yenoo mu naan woy fu ngeen ma jëme ay waaye bu leen ma yóbbu mbir yaa ngi nii mbokk yi ñun ñi ñëpp woykat bi nee na képp ku jigéen jur lu mu yàgg yàgg yàgg danañ la tëral ci jàgg yóbbu bàmmeel fa zid min addunia fa innaka la tadri ida janan leyl halta is ila alfajri fa zid min addunia fa zid min addunia utal sëri ca yóbbaale utal yóbbal yóbbaale ci àddina bi nga nekk ndax xamuloo bu guddi gi jég guddee ndax xamoo di nga fekke fajar fa kam min saqimin ñaata yoon nga gis ku wir këng daa di dee léegi léegi fa kam min saqimin aasa bi gayri illatin ñaata nga gis ku feebar te di ci lal ba ku ko seeti boo ñëwaatee da nga naan cëy waaye mu continuer dund fa kam min sahihin maata bi gayri illatin ñaata nga gis koo xam ne ku wir këng la dafa jóge entraînement rek ñëw dee ñu ne pourtant léegi léegi laa ko romb pourtant léegi léegi fii yàlla faalewul loolu kon nañ leen góorgóor su ko defee waa ji sang nan ko teg nan ko ci kanamu bam ar jàkk ji ilimaan jullee na ko yenu nan ko ñu ngi koy yóbbu yóbbu nan ko nag léegi ba ci bàmmeel bi suuf si di wax ak moom suuf si lan lay wax yaa abdallah jamaata ani dunia jamaat tarakta ani dunia tarakak ibnu aadam xarajta min atturaab wa utta min atturaab xarajta min atturaab bila zamb wa utta min atturaab wa kulluka zunub doomu aadama yaa ngi doon dajale àdduna rek àdduna di la dajale tey bàyyi nga àdduna àdduna bàyyi na la moo tax àdduna dañ ko laaj ne ko àdduna ndax mun nga ànd ak nit mu ne déedéet ñu ne ko lu tax mu ne day nelaw day feebar day amay soxla man kuy nelaw duma taxaw di ko xaar ku feebar duma taxaw di ko xaar damay continuer rek kay wéy àdduna kër la waaye kër la goo xam ne awwaluha ana mbiram yépp coono la njëlbeenam yépp coono la da ngay sonn rek waaye wa axiruha fana fu muy jeexe mooy day jeex tàkk mu jëntalu àdduna day jeex fii xalaaliha hisaab wa fii xaraamiha iqaab lu dagan li nga fi am yàlla dala koy àtte laaj la ko li araam li nga fi def yàlla dala ci mbugal xoolal rek mbir moo xam ne fii xalaaliha hisaab wa fii xaraamiha iqaab li dagan li nga fi am xoolal xadis bi ñu doon wax sànq yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam xaalis bi nga fi am lépp loo fi am ëllëg yow mal xiyaam dina la laaj bu fekkee junni nga am ci àdduna ñu ne la junni bi fistin bu nekk foo ko jëlee ak foo ko def waa ñi gañe pays mi nag ah agresseur bi ci koñ bi nag nga xam ne moom fas yéenewul liggéey yi ñaq jàmbur yi la narali dunde ah ki nga xam ne moom triande rek njublang jël jël ay mbir tappale ko ba pare naan best bi la best bii piir bi la fekk trian la loolu rek la nar a dunde loolu rek la nar a dunde te yonent bi nee na dërëm boo fi am dinañ la laaj foo jële fissin bi ak foo ko def ñooñu moom foofu la ñeneen ñi nga xam ne seen alal yëpp nag ay meeting rek la ñuy financé ay meeting ay podium ay xumbal ay ndaw rabbin seen alal lool rek moo koy lekk jamais ñu jël seen alal def ci yoonu l'islam l'islam sax buñ ciy joxe dañ ciy ngis sal i gis fi benn waaye buy génne azaka day ut ay enveloppe am bu fekkente ne un million la war a génne azaka un million bi da koy def cinq cent cinq cent taxaw nag ñu ne ne nit ñi rang leen rang leen nit ñi rang muy joxe par téeméer ñu naan ndeysaan kii moo baax joxewul dara azaka kenn du ko génnee noonu waaw tey ñun suñuy borom alal foofu lañ toll yonent bi nee na àddina bi ngeen nekk li dagan li ngeen fi am dañ leen koy atte yowmal xiyaam lu araam li nag dañ leen ciy mbugal allahu akbar ey kon war na noo sellal suñu utin saad ibnu abi waqaas bi mu duggee ci lislaam dafa ñëw yaayam ne ko saad dégg naa topp nga muhammad mu ne ko waaw mu ne ko saad dégg naa alquran di wax na ngeen topp seen yaay ak seen baay mu ne ko waaw waaw mu ne ko nag man pour nga topp ma foog nga génn ci lislaam xoolal ay alquran la ko indil saat da ko ne yaay xaaral ma dem waxi jeeg yonent bi dafa dellu ci yonent bi ne yonent bi kat sama yaay nee na ma génn ci diina ji te aaya alquran la ma indil ndax waqadaa rabbuka an laa taabudu illa iyaa wa bil waalidayni ihsaanan la ko wax rek jibril jóge kaw asamaan ne wa in jahadaaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma waaye nag wa saahibhuma fi dunya maarufan rek sa at dellu balaa muy dellu mu ne yonent bi ñaanal ma sama yaay dugg ci lislaam yonent bi yëkkati ay loxoom ne allahumma hdi umma saadan yàlla yal na nga jubal yaay saat sa at dellu rek yaay ji ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sa at delluwaat ci yonent bi keroog nii la doon def ne yonent bi ñaanal ma yàlla def ma nangu yàlla def saa yu ma ñaanee yàlla nangu ko yonent bi ne ko duma la ko defal yow kenn waaye jullit ñëpp laa koy defal kooku mooy démocrate bu mag bi waxul dama koy defal Fatima waxul Roqaya waxul Zeynab waxul Umu Kalsum waxul Ali waxul Ousseynou waxul Assane ndax ñooñ ñooy deretam waaye da ko ne jullit ñëpp laa koy defal jullit ñëpp bu nu déggee li may wax ku ñaan yàlla nangu saat ne ko noo koy defalee jullit yëpp mu ne ko saat soo bëggee ñaan yàlla nangu at immat amaka li ngay lekk na dagan li ngay lekk na dagan li ngay lekk bu daganee booy ñaan yàlla muy nangu yonent bi daan taxaw xutba jumaa di xutba benn waaye na ko yonent bi ñu ngay alku yoon yi dagg nan suuf si wow na nit ñaa ngay dee ñaanal yàlla yonent bi yëkkati ay loxoom balaa muy wàcc asamaan commencé toog xoolal ñun tey ñun ñaata yoon lan ñaan ñaata yoon la ñuy ñaan ñun ñu ngi nii di ñaan nguuru kàccoor gi pour mu jóge fi mënuñ ci dara waaw parce que li ñuy lekk moo daganut état boo xam ne li ñuy lekk riba la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dinañ dem jamono riba day tas ba ku lekkul ci riba bi di nga lekk ci pënd bi ñun ñi ñëpp ci pënd bi la ñuy dundee pëndu riba la ñuy lekk pëndu riba bépp réew boo xam ne économique réew ma ci riba lay départ réew moom du dem loolu tax boroom xam-xam yi firi alquran ñu ne aaya bi yàlla di wax ñiy lekk riba yowmal xiyam bu ñuy jóg bu ñuy dekki dañuy jóg di daanu ñu ne état buy dunde riba da ngay jóg di daanu gis nga mu ngi nii du dem mukk ngi nii xoolal pays mi ni mu tase Sénégal yonent bi ne man akala luqmatan min xaraamin laa tuqbal lahu salaatan arbaina yowman ku lekk benn tibb bu araam benn dànk bu araam boo ko lekkee quarante jours boo julee yàlla du ko nangu yonent bi ne kullu maalin nabata ala xaraamin fa naaru awlaa bi bépp alal joo xam ne cosaan bi dafa araam safaraa ci yey ñun tey alal ju araam la ñuy daga la ñuy tiitaroo amaana sax nga gis ku ku gañe pay mi dem màkk waaw man damay jënd PMI bu ma gañee ma dem màkk bu ma ñëwee tabax jàkk waaw daal di yóbbu sama yaay ak sama papa kon léegi dina dagan foofu lan toll gis nga ku demee màkk alal ju aram mi ngi mel ne ku dem àll ba rek daa di pare ci dem àll ba daa di jël say saw daa di koy laaboo noonu la mel noonu la mel mbokk jullit yi waa ji ñu ngi koy dugal ci biir pax bi waaye bala ñu koy dugal bàmmeel day wax ak moom ndeysaan ndeke bàmmeel sax day wax ak ñun alxabru bàmmeel bàmmeel danaan la yow doomu aadama bi man maay néeg gu xat ana baytu diig maay kër gu xat ana baytu duut maay néegu sax ana baytul waxsa maay néegu wéetaay yaa ngi doon dox sama kaw di ree tey di nga jooy sama biir yaa ngi doon dox sama kaw di lekk tey samay sax dina la lekk ñu daan lay yoor ñett nit la ni yoo te gaa yi gis nga bu ñu ñëwee duñ dugal seen ñaar tànk de benn tànk la ñuy dugal aj benn tànk bi ci kaw am na lu xew gis nga de gis nga wallahi li lay wan ne nit ñi bëggunu dee kenn jaamul ci yàlla mooy buñ la sulee pare da ngay dégg ñu ne yooyu sax ay léeb la xam nga ku gestu rek day woote ku gestu rek yow lay woon ngay gis nit ñi buñ suulee rek di njëkkante porte ba ñëpp di daw xam nga loolu ay caaxaan la doo gis sax kenn nangu faa def buñ suulee rek nga gis am na ñoo xam ne ñoom ña ngi ca kanam waaw ci oto yi di daw di njëkkante place xoolal gis nga yàkkamti nanoo dem suul la rek ba dem noos yi wallahi moo tax nañ leen jaamu yàlla wallahi buñ jaamu yàlla suñ demee nit ñi dañ nuy suul rek ñun ñu def ñu am problème ñoom ñu des di noos suñu ginnaaw gaa yi lay dugal dañ naan bismillah ala millati rasulullah bu fekkee sax ñooñu ñu xam sunna lañ lan koy wax waaye bu fekkee xamuñu sunna moom dañ naan na ñëw rek daan lay jàpp na la pacax ci biir dugal delloo si leen suuf si daan lay suul ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dañu am benn waay bu génn àdduna ñu koy suul yonent bi bu suuloon nit ba pare xam nga ñun fi bu ñu suuloon nit ba pare da ngay dégg ñu naan faatiha fanweeri yoon lixlaas juróom fukki yoon alam nasara baax na de alxuraan la bul wax bon na de alxuraan la baax na waaye yonent bi deful woon loolu te ngaa def la yonent bi defoon yonent bi moo la gën a xam alxuraan moo la gën a xam saar boo xam ne buñ ko jàngee léegi waa ji dem àjjana waaye buñ suuloon nit ba pare xam nga lu muy def danaan istaghfiru li axiikum haza fa innahu l aana yusal jéggulu leen waa ji ndax ñu ngi koy laaj saxaaba yi naan yàlla yàlla na nga dëgëral làmmiñam buñ koy laaj loolu tax yonent bi ne bu ngeen suulee nit na ngeen fa toog loolu sax waa sunna yi dunduñ ko dañ fay toog kem biiru loo xam ne dañuy rendi xar fees ko saam ko joxe ko lan la ñuy wax yàlla yàlla nga dëgëral làmmiñam buñ koy laaj loolu la gaay buñ sulee rek anama mbir yi noonu la sunna boobu sax dundaguñ ko de sunna sunna sunna sunna boobu def na dundaguñ ko te nag boobu jara dund la parce que nekk ak sa mbokkum jullit ngeen di góorgóorlu ci tool bi ba mu dee lii rek la fi dese nga bañ ko koo defal mais lu garaaw la loolu benn saxaaba doon wax man bu ngeen ma suulee bu leen dem na ngeen toog ma wéttaliku ci yéen na ngeen toog wéttali ma ñu ne ko nan la lay wéttalee mu ne dee ngeen dee leen wax yal na yàlla dëgëral sama làmmiñ buñ may laaj wallahi mbokk yi lu jar la de waaye da ngay gis fii ku dee ñu jàng xulwàllaaw baax na alxuraan la mais est ce que xulwàllaaw ñaanal nañ ko ci nga ni waa ji allahuma ixfir lahu warhamhu ak nga jàng xulwàllaaw loo koy tiyaaba nga defe ne wallahi allahuma ixfir loo warhamhu moo ëpp tiyaaba parce que yonent bi loolu la waxoon moom moo xamoon mbir yi moom la yàlla yónni woon ñun ñi ñëpp bi ñu yàlla di yónni bi yàlla di yónni muhammad gisoon nañu fi waaye ñun doyunu ko muhammad a ko doy ñun doyunu yàlla yàlla tànn muhammad yónni ko ne ko lu nekk lii leen ci war a wax lu nekk lii leen ci war a def docteur bi nag bu la bindalee aspirine nga dem di naan candidat doo wér jamais doo wér aspirine bi sax bu la ko bindalee nga ñëw war koo naan daal di koy takk ci sa bopp bi jël ordonnance bi def ni paquet bi takk ko ba mu dëgër ñu ne la naan ko nga ni non aspirine la dina wér du wér foog nga naan ko yonent bi lii la doon wax nañuy wax loolu man day mbokk yi bu ngeen déggee génn naa àdduna na ngeen ma ñaanal yàlla na yàlla dëgëral sama làmmiñ buñ may laaj waa ji buñ ko dugalee ba delloo si suuf si ba nit ñay ñibbi yàlla mooy wax ak moom léegi suñ borom lu muy wax rajawu wa tarakuuk wa fi turaabi dafanuuk walaw zallu maaka ma nafauk walam yabqa laka illa ana wa ana alhayu allazi la amut yàlla day wax ak yow de borom bi mu ne rajawu wa tarakuuka dellu nan bàyyi la te ci biir suuf si lan la suul te buñ fi desoon duñ la jëriñ dara nag te de sama fi tey kenn ku dul man te man maay buur bii dund te duma dee te man nga doon tooñ nag ah mbokk yi du baax de ñëpp a ngay ñibbi koo fi desal yàlla yàlla mi nga doon tooñ moom nga fi desal tey waaye buñ la suulee bul yaakaar na mbir mi jeex na léegi yaa ngi ca beneen dund yaa ngi ca beneen monde lan mooy xew foofu mooy laaju bàmmeel su aalul qabr mooy juróomeelu point mboolem ahlu sunna wal jamaa ittafaqu ala anna kullu insaan yus'al baada mawtihi sawaun dufina fil qabr am la mboolem boroom xam-xam yi nga xam ne dañuy dund alquran ak sunna nee nan képp ku nu suul képp ku dee moo xam suul lan la moo xam suul nu la dinañ la laaj biir bàmmeel moo xam bukkiyee la lekk moo xam da ngaa lakk ci safara ba jeex moo xam da ngaa lab ci géej jën yi lekk la danañ la laaj ci biir bàmmeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ci hadis boo xam ne buxaari ak muslim ñoo ko solo nee na suñu deewee inna al mayit ida wudia fi qabri wa tawalla anhu ashaaba fa innahu la yasma qiraa ni alihim idan sarafu yonent bi nee na nit ki bu dee ba nu suul ko dugal ko ci biir bàmmeelam ba nit ñee ñibbi ñaari malaaka dinañ ñëw ci moom daal di koy toogloo dana dégg bu nit ñi di dem dana dégg seen dàll yi di xoos-xoos yi di dem ndax nit ñi bu ñuy dem rek yàlla branché waat la sa ruu nga nekkaat nit nga dégg nit ñi ñibbi mel na yow mu nekkoon sa biir néeg di tëdd nga dégg nit ñi dox ci perron bi noonu ngay déggee nit ñi ñibbi ñaari malaaka ñooy ñëw ci yow ñaari malaaka yu am na nuntu